wa rahmatullah mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen siifur fu ngeen mën a ne si àddina bi rek tey nag ñu ngi jàkkaarloo ak ki nga xam ne nii moom moo di Demba Demba nag bu ñu ko waxee yaakaar naa ne diggante ak Modou Lo ku ne na ko ñu jëm si combat boo xam ne coow li bëri na ci combat bi dina am ak du am nangam sàngam am na xam ne soo ko bëggee xam defe naa faw nga laaj te moom xëy na ko laajee dina am lu mu ci mën ak tam fu ñu toll si waajtaay bi Demba maa ngi lay bëgg di la ziar. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam di nuyu mbokk yi ñuy seetaan à travers Lutte TV ak Leewtoo TV waaw di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax waaw combat bi avant tout dañuy ñaanal ki ko tëgg ba pare muy ni ko laa yàlla defal ko jàmm defal ko sutura ba mu génn foofu noonu mu nekk comprendre nga comme ni ko Modou waxee woon rek Luc mënul nekk fële di tëgg lu nekk ci biti parce que fan yi déggoon naa ay wax nit yi di wax jàkkaarloo dina am mais jàkkaarloo amul kon jàppaguma ne lu concret gum am na quoi man ci li nga xamante ne loolu laa yaakaar jàpp ko waaw di ñaan daal avant tout yàlla defal jàmm ni ko laa mu génn ak jàmm ñu doog a jublu ci leneen quoi. waaw Luc Nicolaï génn ak jaam yàlla na ko yàlla def barke yonent bi sa alayhi wa sallam mais tey bu fekkente ne Luc Nicolaï génnul ndax bu ñu sañoon mu génn waaye nag ku wax lii da ngay wax la ca des su génnulee da ngeen dul bëre combat bi wala. waaw bu génnulee xam nga tamit moom moo tëgg amaana dina am koo xamante ne ku ko doy la mu ne ko carrément lii bëgg naa nga defal ma nii bëgg naa ma defal ma lii léegi bu dee kooku mën na ko mu daal xam naa ne mu ngi fi pare na pour bëre. waaw pare na pour bëre quoi. parce que for nañ ci woowu béykat yi doomam di wili am na di licence pour tëgg làmb ji bu ñu demee ba mu wër ne nag ah yaa fi sës comme li buur di wax ay des bu keroogee euh, maanaam lu ngeen di wala olof naan yaa fi sës bu keroogee bu wili sësee kon di ngeen bëre daal. waaw bien pour pourquoi pas parce que bëre bëre la rek affaire yi dégg euh, nit da ngay def li nga xamante ne loolu moo dal sa xel nga sabablu tamit. mais yàlla mooy yor dernière décision quoi xam nga di ñaan yàlla rek affaire bi taxaw te bu taxaw yàlla na yàlla may Modou ndam waaw. yàlla na yàlla may Modou ndam loolu say wax la waaye Modou Lo digganteem ak Ama Baldé ngeen am ci ndam ndax dina yomb. ah pourquoi pas du yomb. parce que li tax ma wax loolu mooy ab du baaxum dañu waxtaan fan yi moom moo yor Ama mooy que ni yéen ci kanam am Modou moom ci kanam Ama. amu ngeen fa benn sens boo xam ne nii war ngeen koo xalaat bay gañe waaw xam nga Abdou Bakhoum mag la man gore laa am na yu bëri mënuma nekk fii di ko wax mais moom na xam ne rek moo du lii du sens mérite la ci moom parce que dafa góorgóorlu ba lii fekk si ko léegi kon Eumeu seen xanaa moom nekkul woon roi des arènes. lu tax nga ne Eumeu Sène Eumeu Sène kay roi des arènes la woon ci li ñu xam ñun. léegi ku ko daan. Modou Lo dee ko daan. waaw léegi kon léegi kon léegi léegi uyee la problème. problème bi kay yéen lañ koy laaj parce que xam nga ñun moom li ñu mën mooy poser leen question yéenay tontu moom dafa jàpp ne seen roi yéen des leen koo may moom loolu ay waxam la ci ci Leewtoo TV ah léegi nag yéen yéenay yéenay xool ndax dañ leen koo may wala mayu leen ko wala mayu ñu leen ko wala. léegi ñun kan lañ ko ñaan bam ñu koy may dañoo bëre Modou daan ko. yooyu problème xam nga wax sa mbaaxuwaay du wàññi sa mbaax dara. moom est-ce que waxul maanaam pour kon jëm leen déstabiliser parce que tamit yaakaar naa ne est-ce que amul droit jëm leen wax pour déstabiliser leen jaxase seen xel yeeg seen bopp yi. ma wax la dara Modou du mbëru cuune professionnel la. ba ba ba Modou gën a professionnel ama mais moo gën a professionnel. dem ba foo teg fu leer. maanaam fu leer fan war ñu ko ñun ñu gis wax nga wax ñu ko. ci lépp. waaw nan ñu ci fànn yi ci nda gën a nekk professionnel ci sport bi wala ci dundam wala ci lan. ci lépp tout. ci lépp li ci Modou nekkul ci Ama. Eh, waaye démb loolu yombul. non yombul xama nga xam nga am na yoo xamante ne maanaam nit ki buñ la laajee nga ciy tontu dañuy jàpp ne sax li nga jege nit ki la wala dara mais financièrement. Modou li ko combat jaral ak lim ciy def di dem ba extérieur di jël ay kër professionnel ay nit yoo xamante ne maanaam seen xam-xam dafa màcc ci sport ñu koy entraîner mën naa ne mbër yu bëri duñ ko def parce que am na mbër yoo xamante ne dañoo bëri jom te gis nga ku bëri jom dafa ragal gàcce quoi. Ama Baldé da nga yaakaar combat bi jaralu ko dem extérieur uti doole yokki boppam. non Ama su ma waxee ne combat bi jaralu ko kon damay wax lu ma neex quoi combat bi jaral na ko ba fi jaral yam mais lu mu ko jaral jaral lu ne Modou la ko gën a jaral. parce que Ama moom dégg nañ ko sax mu ne combat bi maanaam roi des arènes da koo leer te te lay bëree. waa mais xam nga nag nit day wax li mu bëgg rek mais yàlla rek a yor dernière décision bi. waaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko Nicolaï jàmm ba mu ñëw su ñëwee ba ñu taxawal ko yàlla may Modou Lo ndam. yow Ama Baldé mi ñu gis ci làmb façon bëri bi muy bëri Ama du may adversaire am fu mu yekk ak nàkkam moom bu arbitre suuf lee xëpp na la ay yamb moom yaa xam dañ ko mën a dékkool doo ko mën a dékk mooy foo na la fay fekk timbax ak rimbax lépp lay boole buy ñëw ngeen xalaat ni mbër moom yéen mën ngeen ko gën préparation wala gën koo pare mentalement wala physiquement ko gagné. xam nga li xew suba yàlla rek ko xam. mais yàlla nañ yàlla defal sutura ak jàmm ak monoore ba ñu egsi si loolu. est-ce que xam nga ne Ama dugg na parcelle ay yoon. no mais mais garaawul amul problème. waaw Jules Balde Junior ak ñooñu waa ay Fallaye 2 ay affaire yooyu comprendre noonu la quoi affaire esprit de groupe la rek. esprit de groupe yeah. wax loolu maanaam dafa dugg daan bàyyi pël bi ci mujj ndam bi mu mujj am biir parcelle muy diggante ak Papa Sow yaa ngi dégg mu mel ni kon ama aw yoonam maanaam dafa bëgg a miin parcelle jóge ca nag ñu ne diggante ak mu Lo waa des arènes loolu maanaam est-ce que du leen xaw a tiital wala nangam. incha allahu rabi bu combat bi taxawee man xam naa ne Modou da koy dakkal bu soobee yàlla ak yonent day dakkal dugg bi mu fiy dugg. bu soobee yàlla. ndax dina yomb. yàlla baax xam nga dara yombul ci góor góor moom dara yombul. kon daal su ma la déggee Ama bi yoon moom maanaam bu lii amee bu soobee suñu borom ci la duggum parcelle am di arrêté. Ah, waaw su ma juumul naa ne juumu yàlla defal jàmm ak la daa mel ni bu nar a metti de ko. waaw Pikine parcelle dër bi la mais géejawaay ak parcelle moo gënoon nekk dër bi. waaw te gis nga li ci xew yëpp xam nga yàlla def na génn nañ ci jàmm comprendre nga yàlla may Balla Gaye ndam xam nga muuru tamit dem xooli ji waat leen yàlla may ko roi des arènes. Eh, xam nga ne cameraman bi ma fi la gën a saf xorom moom bu tegee fi appareil ca moom ca téléphone ba de ji ngi cay message am dem ba ah mas ngaa gis lool ah mais loolu loolu ak àddina ñoo àndurandoo la de Demba de la tudd. Ah, kon moo tax nag Demba yi dañuy am xorom. <laughs> Ah, waaw Demba yi waaw léegi bu ñu continuer ba tey dañuy des foofu parce que gis nañ tamit mm, tey wala sax ci làmb loo xam ne nii coow ci combat Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu yaa ngi dégg ñaar ñu war a bëre ay àndu ay mbër jam kenn ki yaa ngi dégg ba combat ba mujj yàqu image boobu yow ngay nitu maanaam doomu sénégalais di jeune tamit di nekk jeune boo xam ne yaa ngi dugal sa loxo ci développement réew mi tey loolu yow image boobu boo ko gisee loo ci wax ak lan ngay ñaaxi xale yi ak ban comportement wala la ñu war a am à travers le monde waaw man bu ma gisee loolu sax damay rus te avant loolu li nga wax nii sax moo tax may wax loolu mais bu dul woon loolu duma ci wax parce que suñu papa Xaadim Samb dafa tëggoon tey combat invité monsieur le ministre Cheikh Kanté mu yebal doomam ñu Kéba Kanté Kéba di sama xarit ma ànd ak moom dem ci stade bi parce que c'est la première fois ma dem stade Pikine bi waa nationale bi ma gis ko mu ngi rafet macha allah wax dëgg yàlla ah, di féliciter xam nga axlu làmb yëpp parce que làmb moo ko quoi comprendre nga mais bi ma ñëwee toog xam nga nit foo dem rek am na ñu la bëgg am na ñu la bañ. loolu moom mënut a ñàkk maa ngi gis booy Jacob Balde ànd ak euh, benn waay Ifra comprendre nga ñoom nag waxuñu defuñu mais nit yi ñu àndal dañu doon wàcc ci suuf après ñu yégalaat leen ci kaw maa ngi toog ci tribune bi mais ñuy ñuy ñuy ñuy wax du n'importe quoi te loolu benn rafetul parce que mënoon nañ wax foofu man duma ma tàppet du ma ragal mais nit ku nekk tamit dafa am lu muy bañ am lu muy jomb quoi man ku ma xam xam ne musu Moodu musuta bëre sax may wax ci nit lu ñaaw wala dara mais ñu def loolu ma jóg ma ne daal garaawul quoi ma ne Kéba man maa ngi dem quoi parce que dafa am kenn ku ma woo affaire urgence ma jóge foofu bi may ñëw ba yegg si fii ma dégg ne combat bi dafa am histoire xam nga Aliou Seye lii combat bi yeggul léegi bu ci Aliou Seye ñàkkoon ba kanam wala ki ànd ñàkk jëriñu këppu ko leneen am ci gis nga nit gis nga kaw su neexoon golo du wàcc ci suuf mais nit yi dañu war a indiwaat seen xel parce que tout récemment rek man man Pikine am naa fa ay am di jàmm am naa fa ay xarit damay dem ba foofu dem ba jamaa tout récemment affaire Jibi Sarr bi Jibi Sarr raqam suma xarit la liilu te liilu Ama Baldé lay àndal dem ba jamaa moo tax ma xam ko magu magu magu liilu te mu nekk euh, extérieur Europe sama xarit la woon comprendre nga ay ñeneen ak ñeneen ay ñoom Assane ay nit yoo xamante ne su ma fi nekkee di lim du ma fi jóge mais dafa am ñoo xamante ne mais dafa mel ni ñoom dañuy jóg pour yàqal mbër mi xaw ma ñoom ñoo moom mbër mi xaw ma la la léegi nga romb Demba nga saaga ko ci biir nit yi ne lii day tax mu Ama Baldé daan Modou Lo wala dafa am lu muy yokk wala dafa am lu muy wàññi. dinaa wala. mais buñ ma saagaa rek sax mu tane mais nit koo xamante ne mu ngi nekk ci biir nit yi waxula la tudd la taasu la ñëw naa nuyoo toog mais léegi lan lan mooy man mënuñu ma kereel problème parce que bii mooy deuxième fois benn jour dem naa soirée Waly Seck tamit di génn boobu lii sax amagul booy ñëw foofu noonu yii xam nga ay am na yoo xamante ne daal daf ko jarul man Ama Baldé xam na ma bu baax xam naa ko bu baax si amee dégg. mais est-ce que est-ce que Demba tey bu ñu jëmee ci bés rawatina bés bu toll nii yéen ñaari pàcc yëpp mu xam waa parcel la waa kër Modou Lo wala waa kër Ama est-ce que sens de responsabilité war da am ci combat bi ba que maanaam ñu def ko ci cadre sport mu yem ci cadre sport mais pas ñu ciy dugal parce que loolu sama koy wax dama la koy adressé adressé leen ko adressé ko suñu bopp parce que pour man ñun ñëpp am nañ responsabilité tey suñu réew. pour que ñu jàpp tamit ne sport la ñuy def ñu bañ a dugal yenn yi daal pour man wala yéen amu ngeen ci responsabilité comme ñoom. Moodu bëri na ak ku nekk man am na mbër yoo xamante ne dañuy bëri ak damay gisanteeg ñoom am na ñoo xamante ne laa lax dañ may romb ma leen di romb ça va ça va ñu dem man awma kenn man amuma benn mbër boo xamante ne dama siq ak moom ay relation yoo xamante ne mooy loolu ñëpp jàmm laa siq ak ñoom. mais kenn laay faral ci làmb di ko supporter bañ na ko boo boonee demb rek kenn du ko xam foog nga ne demb xarañ loo muudu maay mooy man man maay moom mais nag dafa am loo xamante ne rafetul te nit yi dañu war a bàyyi xel ci loolu comprend nga parce que lii rek wane na ko lii am nii tey rek wane na loolu làmb foo la ko daanu rus mais tamit léegi ñaanuma ko yàlla nga joteeg nit ba dara am ko dara dal ko nga yàq sa àddina pour rien du tout di papare di profito waale xam nga di di di di di ñaan nit yi ñëpp parce que maa am ñoo xam ne ñaa ngi doon wax ak ñoom pour affaire Jibi Sarr bi te pourtant Jibi Sarr moo doon toogal ama cumbukaay mooy ki ñu wax dafa wéradi dafa wéradi man ak Demba Jama ñu ngi doon waxtaan ci loolu bu baax man it ba ma am ñu ma ko wax ba ma wax ko mootloo mootloo Modou ne ko carrément bëgg naa nga jàpp ci mu rafetlu loolu ba joxoon ma suba pour man ak moom ñu gisante. nag ak lu mën a xew yow loola bu mu tax nga te ko war. tax parce que xam nga ndax lan man doomi aadama la li ko dal mën na ma dal suba parce que ñun ñëpp kenn xamul suñu suba quoi mais léegi ñaanuma ko yàlla quoi man mi fa doon waaj a dem ci semaine bii. léegi kon ñoom bu ñu ma fekkoon foofu biir Pikine kon lan lañ may wax. Hmm? Ah, doy na waar de. man kenn li mu doy waar kenn kenn xamul lan la ko waaw mais nañ jàpp ni ñu ñëpp Sénégal lañ dëkk rek parce que tam yaakaar naa ne ay sénégalais lañ te defe naa sénégalais bu ne am nga droit laa foog teg sa tànk fi ñu ko bëgg a teg ci kaw def la nga war def dox say soxla génn dem sa yoon. moom aw ma sens interdit fenn te kenn du ma utal sens interdit fenn dama dama dama am naa ay nit Pikine. su ma leen soxlaa damay dem ci ñoom suñ ma soxlaa dañuy ñëw ci man man musuma booy may àndal yépp musumaa gis ku moodu di bëreel ñu gis la di la kereel wala di la saaga wala leneen dinañ ànd ak moodu nag entouré ko boo bëggee def dara ñu joteeg yow mais pas romb la nii rek nga xool la nii rek kii kii rek ñu wax la <laughs> loo xamante ne Sénégal dafa neex quoi. waaw ah, yàlla na waaw xam nga rek waa mais ay frère lañu mais nañ ko teg ci cadre sport rek léegi nag fi may jeexal ak yow mooy diggante Siteu ak Papa Sow ku ne xam na ne yaag Siteu am na lu ngeen seq Papa Sow dëkk parcelle di mag ci Modou Lo mu mel ni benn gétt bi la mais làmb dugg na fi loolu noo koy dundee dem ba. waaw li ma koy dundee Siteu suma mbokk taalibe la suma mbokk Baay Faal la suma xarit la pareil mais moom it suma mag la làmb fola ku daan day rus mais ku nekk day bëre ngir goxam Siteu waa Diamaguène dañ ko yaakaar Papa Sow waa Parcelles ak fas noonu man Kaolack laa juddoo màggee Grand Yoff man dëkkuma Parcelles mais je supporte Modou Lo parce que suma xarit la dañu am lu bëri loo xamante ne dañu lié de base ba tey mais man suma première mbër ñi nga xamante ne à part Tyson moom laa doon supporter parce que Kaolack laa juddoo man Zarko laa doon àndal ak benn mbër bu ñuy wax Bàcci Seras mbës paa bi. man Bàcci Seras il faut nga préciser. benn bi dëkkoon Grand Yoff. bokkul ak Bàcci bu Pikine bu ginnaaw. non non non non. mën naa ne Zarko ak Bathie Seras ñu la dugal ci làmb ñoom ñoo ma dugal ci làmb mais Zarko taxul ma xam Modou Lo keneen moo tax ma xam ko kon yaakaar naa ñun ñëpp ay frère lañ. mais comment foo ciy far. que le meilleur gagne. lii la dem ba wax. lii laa wax. diggante sa tàkk papa. loo bëgg ma wax ci. Sénégalais yi kay bëgg nga wax ci man kay dama la laaj man kàddu waa réew mi laa la indi. kàddu waa réew yi mooy sa mag suy bëre wala sa raq di bëre xam nga ku ne Siteu bu doon bëre keneen Siteu laay faral Papa Sow bu doon bëre keneen Papa Sow laay faral duma am sax sentiment dama koy wax mais ñoom ñaar ñëpp sumay nit lañ. ku ci nekk ji na ma teraanga defal na ma loo xamante ne mënuma munuma dootul tëddee njaaxanaay quoi. seetaan naa nga ci yow. waaw. kontaan naa ci yow. jërëjëf fii la ëppee di sant di nuyu di gërëm suma jumeau Alenia Youssou Ndoye suma basketteur xam nga ak euh, Kéba Kanté xam nga di gërëm waa business compagnie ñoom Tafa ñoom Jibi xam nga ñoom Badou. xam nga ñoom Moussa Ndiaye ñoom ñëpp sama gars yi amee d'enfance yi su ma limee damay juum xam nga sant naa gërëm naa ñëpp di nuyu tamit sama pël bi Elaska xam nga waaw ak magam xam nga muy bunaama xam di leen nuyu bu baax a baax waaw. kontaan ci yow dem jërëjëf fii la ëppee jërëjëf jërëjëf.